dellu ziar. ci loo nekk. sant ku tedd gi rek. sa teewaay tey du la ko laaj ndax Balla Gaye senior yéen ñaar. waaw taxay sama xarit la suma xarit la sum doom day la ñu foowandoo loo lépp nekkandoo si làmb kon loolu nekku loo xam ne tey la démb la. mais Forza 2 adversaire bi nga bëri xam ngeen ah Forza 2 xam nañ ko gumbër yëpp di ñaan yàlla may ñun dem ci kawam. mais avant Balla mën a ko yàgg si itam nee du wax sa wax. non man waxu may waxam. ndax bu ko waxam. ñaar làmb boole amateur yi bëgg làmb ji. waaw ah, waxumay waxam. mais la 4 4 avril bu ñëwee gis ñu Siteu mu bëre 4 avril bu ñëwee te Siteu bëre loolu. waaw mais am na ñu bëre qualifié bëre na. mais 4 avril. waaw da nga koo xamoon ak Siteu. waaw 4 avril moom wax dëgg fa yàlla xëy na nit ñi dañ ma si dañ ma si ràññee rek ma si def loo xamante ne lu kenn dul def mais loolu du man xëy na suñu borom la. yee loolu lépp lépp lépp suñu borom la. yee di koy ñaan yàlla muy nuyuwaat ñu si làmb ak jàmm ko